trois photos yu ma la bëggoon wan ku ci nekk nga wax ma lu mu lay inspiré mais finalement damay choisir kenn mhm. nga wax ma nit kooku lu mu lay inspiré mhm. li tax ma choisir nit kooku dama gis ni que euh, vous collez euh, une grande importance mhm. aux femmes gis naa ni que bëgg nga jigéen ñi xam nga seen gëdd et xam nga li seen seen seen rôle ak seen valeur ci société bi su ma la tuddalee ki nga xamante ni moo di may Ndour Faye la la lay inspiré exemple de leadership féminin dans un secteur bu metti bu tudd la presse boo xam ne dafa bare aussi ay petits problème ay grands problème mais may mun Maimouna euh, ba ma ko xamee ba léegi euh, dama gis d'abord charisme bi yàlla def ci moom naturel cest à bu ñu toogoon ci milieu yi ñëpp toog boo ñëwee daa ko ràññee daa ko gis euh, boole ci mu doon def un travail très professionnel ba léegi d'ailleurs ma émission mi fu mu wootee ñëpp ñëw ak yooyu tout ça pare léegi mu jël leadership benn média 7TV di ci def liggéey bu am solo ba pare nag ñëpp respecté ko man gisuma bokk koo xam ne am na problème ak moom parce que dafa dafa am élégance dans le style ak ni muy waxee ak ni muy respecté nit doomu aadama doomu aadama ku ko fonk rek respecté ko li haalpulaar naan sa tini neɗɗo tan an jeey an jeey on oɗon neɗɗo o on neɗɗo oɗon ko an jeey ɗum sa tini boo ko yëgee yaa moom boo ko yëgee yaa moom moom sama sœur boobu may mu Maymuna noonu lay doxalee donc professionnelle euh, très charismatique très euh, ouverte et très très inclusive loolu wërsëg la chance la pour moom ma koy encourage na continuer wax ko nag ne carrière am ce ko qu'au début dese na ko encore lu bare lu mu mën prouver euh, jeexalagul bu ko kenn wax ay waxu yàgg nga ci média yi non yàgg ci excellence amul excellence dañ ciy dëkk jusqu'au dernier jour donc yàlla na ko yàlla lafal ca jàppale leen nag yéen ñëpp aussi parce que yéen ñëpp ay may mun a ngeen ah. yow sa bopp gis naa ni ngay doxalee yeneen euh, <laughs> sœurs yi nekk ci euh, seen télé bi vous êtes très détendu relax ak yooyu xam nga mm-hmm. euh, yenn tension yi stress yeeg yooyu fële ngeen koy teg donc vraiment dama leen di féliciter